donc Diamane au Grand Théâtre le 5 juin donc il faut que nous Japonais ce que nous il faut que nous nous ci ni mu ci et def nous nous lu ñu ci nous a def maa koy teg ci Glory Docteur, waaye Gaïeb, gars yi au Grand Théâtre le 5 5 juin 5 juin. Euh, lan le la ancienne génération bon ancienne génération si on peut dire grand l'année lan la ñu deful peut-être. gis ne la ñu def lo xamné yeen encourager encouragé na leen. moi je pense pas que on doit pointer du doigt grand parce que grand yi très le job nañ mais moi je pense que le problème de bu dëgër bi ak yooyu si ñoom la joggé parce que gars yapon jàppoon nañ ne comme niko ko xumaan waxee soo xeesee sax waro nek rappeur té ñom idéologie yoy non ñom ñoko ko développer ci si affaire seen texte et tout et puis lolu dem na ba impacter si dugg ci bop public bi ba nga xamné soo wayee sax dañ naan dañ am nu ñu doon tuddee ñun auparavant ñun ñuy way ki day neexal baat wala bu dee si gërëm bi ñu ne jooymaanu express bi wala jooymaanu banque parce que jàpp nañ ne te c' est efféminé même le fait de chanter tu vois te l'or si grand yi la jógee maa ngi jégalu nag loolu waa Rapojo la du ñu. yéen en grand audi loolu am na sinon moi je pense que. ayɛ é, é pasa man ñëw naa benn jour concert fii malal fekk ma ma taxaw mu ne ma boy da ngay sol ay tubéy yu rose saaga ma ma ne ko mais yow lii sama tubéy la man maa ko da mu ne rose malal malal ele fez parte de um gën a yàq malal se malal malal bokk na si lool ne ma booy xees nga léegi de nu mu demee nii ma ne ko non non non non non waxante wu ñu woon lépp comme si foog ñu xaw a dëti yooyu noonu pour xam da ngay waaru. <laughs> jaajëf jaamaan jaajëf euh, El Diaz même question perspective lan mooy next step.